bi muy delloo jam, Malick Thiam sant bu baax a baax. bu tawee drapeau nan la la def tey. waaw sargal bi kontaan naa ci daal. Uh-huh. waaw Kéemaan production moo ñu woo fii tuddee ñu bés. bu sama rakk la sama xarit la sama doomu ndey la maa ngi koy ñaanal jàmm. doo sax sama xarit la sama doomu ndey la teraanga lu yàgg la rek moo ñu boole mu doon cër bu rëy mu jagleel la ko ñaari xale yu toll nii di ko bere yu am mbooloo gis nga mbooloo bi ñu àndal tey boo amul loo leen di koose lan nga leen di wax. waaw ñu rek may ma leen di ñaan ñu dal ñoom ñaar ñëpp rek bëre ko ci jàmm ak salaam parce que loolu moo ñu fi indi te promoteur bi tamit loolu la indi loolu la woote te man mii tamit wax ak yow fair daal moo ñu tax a jóg ñu bëre ko ci fair play kër meer jeex na yàlla may ndam merci beaucoup aca salaamaaleykum mbokku internet yi ñu ngi leen di siyaar di leen bëggee di leen siyaare bu baax a baax ñu ñëwaat ak yéen fii ci Bambey ci journée bi nga xamante ne ni moom la ñu tuddee suñuy mbokk mu ngi waaj wax ak ñaari mbër yi diggante doole ak seeraas di ñaari xale yu am jom ñaari xale yu mën a bëree ñu ngi noonu ñoom ñaar doole ak Seras doole moom la ñu jàkkaarloo moo jóge Ngoy moom mooy dox noonu ànd ak ñoom bébé dégol ak ñoom internet ñu gunge ko fii ci stade bu Bambey ndeysaan Mamadi noo gisee ñaari xalé yi. waaw ah, ñaari xalé yi mom tolo nañ dole lol yaakaar na ne combat bi li ñom ñaar tolo nañu. sha allah combat bi nar na yomb xamna ne warul yomb dal na ñaari mbeuri sank ba tay ñu ngi fi ni rek dama ma xam ku ne yaangi woné wane sa man man ku ne say supporter dal ñu ngi am confiance ci yow en tout cas dal arbitre bi léegi mu soufflé 19h tegal na ñaar fukki simili ak ben xamna rek ñu dal di tambali. Acha mu arbitre a ngi waaj ñaari xale yi mu ngi no arbitre soufflé na combat bi premier combat de la soirée bi diggante doole doole attaqué na waaw doole sànni na doole sànni na doole sànni na doole doole ak Seras Seras mu doole ak Seras Dollé ak Seras Dollé ak Seras Dollé ak Seras Dollé ak Seras ndeysaan hey hey Dollé ak Seras oh ju ngi xeex ñoom ñaar ñaari xale yi la ilaha illallah la ilaha illallah xëcal ko xëcal ko Dollé ak Seras Dollé ak Seras doole la ak Seras Baye Saliou doole la ak Seras doole ak Seras doole ak waaw doole la ak Seras segal segal waaw doole ak Seras ñooy bëre noonu Eh, kan moo ma woon gannaaw nii. Seras la woon ginnaaw. ah moo ma doole moom nga ah, jàkkaarloo. waaw ñu ngi noonu ñoom ñaar. mel ni wax na. waaw waaw. doole waaw. mu mel ni. ba léegi kenn dooragul. de la soirée. di stade municipal waaw. ñu leen di dégtal li nga xamante ne moom moo fi am. doole Seras ñoom ñaar. ak Seras mu mel ni nag fi mu toll nii doole mooy biir Seras. waaw waaw. waaye nag euh, ñu seetaan ndax euh, olof Ndiaye mu ne doole ak seeraas. 4 minutes. kenn songagul. kenn dooragul. 4 minutes. il faut ngeen bëre. je te te te sama waaja. mu ngay yàq. mu ngay yàq. <laughs> mu ngay wax lu ci bokkul. tey waay di siyaare Serigne Ablaye Souaré borom xaas borom def gis borom léegi léegi ak sëriñ Boy Moussa Boy Tine Bour Tine borom Ndangalma borom Xombol borom Bawol waa di siyaare itam Serigne Moussa Diop Touba Madiana maa ngi koy ziar di ziar itam Serigne Aliou Ndiaye yàlla borom ceen yu baax yi borom jaaro yu baax yi. maa ngi koy ziar moom itam waaw ngi noonu xale yi ba léegi doomu dal na laa ilaha illallah Seras door na xeexee Seras Seras ku boobu dal na Seras dal na laa ilaha illallah waaw waaw xeexee Seras ku léegi. Eh, mu ngi noonu waaw waaw lam ji yaakaar naa ku njëkk a song sa morom am dara jàppante nañu ñoom ñaar jàpp eh, eh, jàppandoo na jàppante nañu ñoom ñaar jàppante nañu Seras ak doole Seras doole Seras ak doole doole samp na Dola ASC Rass mu ngi rokos rokos na ko rokos na ko xeex rokos na ko rokos na ko mu ngi koy rokos Rass eh, eh, mu ngi koy rokos xeex mu ngi rokos mu ngi waxee eh, boobu dal na laay laa ban bëgguma loolu bëgguma yi Mohamed bëgguma yi. déedéet nag yi baaxul non gaañ day def effet billaay day def effet yi day def effet waaw waaw. laa ilaaha illallah xale yaa ngi xeex laa ilaha illallah seet tët tët tët am na kuy naaj ci daa mel nii daa mel nii am na kuy naaj wala lan moo xew laa ilaha illallah bëgguma loolu ay xale yi waaw waaw xale yaa ngi xeex hey combat bi miti na laa ilaha illallah cheetet bu yemoon fii sax mu neex bu yemoon fii mu neex cheetetetetetet bu yemoon fii rek mu neex laa ilaha illallah xele yi cey ñu ngi rokos ay bëgguma man laa ilaha ay waay seeraas ay seeraas seeraas mu ngi Seras mu ngi rokos doole bañ na doole ak Seras doole ak Seras doole ak Seras ak Seras fii ngay xool Sadio doole ak Seras doole ak Seras Seras mu ngi koy mu ngi doole. Seras mi ngi koy ngoobu eh tak bi bu sotee du baax tak bi bu sotee du baax tak bi bu sotee du baax bu sotee du baax. mu ngi koy génne koy dajale mu ngi koy génne làmb gërëm bu baax a baax. waaw waaw man bëgguma lii. billaahi nga ni mu ko tàggee. waaw xanaa doo xool. da cee rek baaxul. baaxul su mu ko téye moo baaxul. waaw mu koy caabal la hee caabal bu ko génnee caabal hee xeeb. eh bul gee arbitre bëggul loolu bul soufflé déedéet déedéet déedéet déedéet bu leen xeex xeexee lan moo xew lan moo xew arbitre toogal def koo mat nee na da koo mat am na avertissement. ma ne ku am na avertissement séeras séeras la ku ne am na avertissement def koo mag. waaw bi ñu def fii léegi bi ñu leen arrêté la. waaw waral ay avertissement yi. arbitre bi soufflé bi soufflé waat na. diggante Seras rek ak Odo. mais ñoo gisee premier round bi ñaari xale yi ñoom ñaar. ñaari xale yi moom euh, wane nañ ñaar moom kenn mënul sa morom. Ah, ah. ku ne yaa ngi waaye fi ki mooy daan waaye ñaari xale yi ñu ngi xeex bu baax. a baax a baax waaye li ci kanam nag rawu li bët. miita ñoom ñaar 10 minutes bëre nañu 10 minutes. ñooy CNG bu Bambey di def lu rafet ñoom itam kenn du ñoom sérieusement ñu ngi liggéey lu rafet fii ci Bambey ci làmb waaw waaw arbitre suuf la waat na ñu ngi noonu ñoom ñaar arbitre nee na pare na waaw Seras ñu ngi noonu ñoom ñaar arbitre suuf la waat na deuxième round bi Seras ak Dollé ñoom ñu ngi la waatoo xeex nañu xeex bu miti léegi ñoom ñaar mais doole Seras ñam na léegi ay ñam yu mité miti miti ci ci ci ci ci ci ci yi la ilaha illallah ma ngi tok mais mu ngi melni man lañ koy dor wa dole mi am na lu bu bopp ay ku ñoko sew ci suuf mën nga am dara wa wa lii ca yàlla xele yi ñu ngi sànniwaat xele yi dañoo nar a xeex xeey waay mbaa door bu daanu do am ba dor mu daanu waaw kii moom du toog benn place. mbaa door bu daanu du am. door bu daanu. mbaa door bu daanu du am.

Seras takk na doole eh, eh, Seras Seras mu ngi koy ko Seras Seras ay waay tegal sees Seras fi mu tege baax na fi mu tege baax na moom Seras eh, Seras Seras daan na ko Seras daan na ko Seras daan na ko Seras daan na ko Seras daan na ko Seras daan na ko Seras daan na ko Seras a ngi noonu слово! Wow, wow, bu miti wallaahi yàlla may leen tam man xeexam ma gënal kaay de kaay dama buy xeex déedéet kaay barke Serigne Fallou yéen dër moo ne ma buy xeex wallaahi mais damay sant ma gaay barke Serigne boobu ma kay gaay yi ñoo sof ñaari kaar laa jël gaar yi de sa booy mën nga koo fay amuñu ko fay barke Serigne Saliou bëggee ñëpp man boobu ndaw laa trois blocs laa jël barke Alxuraan leen na borom a trois blocs laa jaay di laaj di sant waa Ngoy yëpp nag bàyyi ma kenn di yaay bu baax dafa sonn man sama papa di laaj di sant sama yaay man mii damay juum kii moom dina ko sant amul wéyam. inter wallaahi moom laa tudd sama bopp. ñaanal nga xam ne sama yaay Xadi Juuf da koy xam ne koo xam ne sa Xadi soxla moo ma ñaanal di sant sama gars yëpp nag Fapal yaa yëpp tout Golgo. lan moo waral combat bi yàgg. ah yow yaa xeex bi wala da ngaa soxla woon combat bi. man tool bu daanu sax laa andi woon. waaw ah. bi ñu liyee bi ñu sama garaate ko laa ñëw saaga ma ndey ne la kenn xeexloo wu la daanal kii nit billaahi waaw santal gaa yi gërëm dinañ la seet si waaw maa ngi soo ñëwee rek seet si ma daal dama lay seet si defal loolu dama lay seet si ñu gën a waxtaan maa ngi sant sama gaa yëpp tout fon boo ama fi am barke Alxuraan damay damay woor de boo paree damay dem contact deux heures deux heures fon damay yéen dem géej barke Alxuraan di sant sama coach Baye Fall Baye Fall moo ma doon tagal gaa ay pondok lépp laa liggéey dama barke Alxuraan dama liggéey ba jeex ma bon naa ni fuuf day la seet ñu gën a waaw bàyyi wu di la sonn nag yow sama grand bu baax sama waay nga wóor na yéene yow laa suuf barke Serigne Touba waaw naan sa kaw sa kanam rek incha allah doo am tànk ginnaaw tànk kanam rek incha allah aca bëgg nañ la waaw jaajëf aca ba nga bëree ba pare jël drapeau bi waaw di kontaan la di sant yëpp di sant bilaay waa ko yëpp sunu ma waa daaru tout maga daw xale góor ak jigéen ñëpp jàpp na ma bilaay di sant ñëpp bëgg sama gaay yëpp tout ñoom Volvo Bébé Dóor sama turandoo inter ñëpp bébé ñëpp bébé Baara aussi Diomaye sama ménage ñëpp booy plateau amul lu yam sama booy bi maa plateau wallaay amul woon sama coach Baye Fall maa ngi koy sant bu baax barka Alxuraan moo ma doon jàngal xeex ak lépp bu bëgg ñëpp tout kenn daal kon sama jigéen ñi ñëpp andi drapeau sama kara sox kooku nii waaw mooy sama sëriñ quoi waaw dem naa dem këram mu ñaanal ma bilaay moom moom ndam li waaw moom moo ko moom ah, bilaay aca grand bi sa drapeau bi miti na de waaw gis nga noonu la mën a demee mais kontaan nañ bu baax a baax ah. di féliciter mbër mi tamit di encourager mbër mi di kontaan ci Keman production encore ngi ci di kontaan ci xelalal daal ngi liggéey tamit te nekk na ci yoon tamit. nga gisee ñaari xale yi jàppante xeex xeex bu métti bu yàlla dee tax ñaar ñëpp liggéey nañ kii liggéey na kee liggéey na kee meer gañ kii moom la yàlla may ndam waaw bëri na bëri bu métti tamit waaw tamit mën na demee neen mais moom la yàlla may ndam ñu koy encouragé tamit waaw sunu rakk la. est-ce que nga pour recevoir ñaar. li ci ñu koy ñaanal li ci kanam yàlla na gën li ci ginnaawam daal kii maag moom sama rakk la du ma ne pare naa pour recevoir leen parce que kii sama rakk la waaw fi mu toll nii bu daanu woon mel na li ma daanu drapeau bi mel na ni daal drapeau bi la daal. daa jóge kër ga ñibbiwaat kër ga. waaw fa la jógee fa la delluwaat te mënut a ñàkk daal noonu la mën a demee rek tamit. ba may ñëw tamit ko koy ñëwaat daal. waaw mënut a ñàkk suba dinaa ko koy yóbbulaat. acca ñu jël soxna si loo ci sànni ay kaddu. ki ñu tuddee drapeau bi sa lan la. sama mag la. Ah, sa mag la waaw. ah loo mën a wax ci bés bi. kontaan rek. ah, ah mais da amutoon wuti nañ ko ñi ko doon jaawale réccu nañ koo ñi ko weddi woon jommi nañu ah nee naa la mbokki Sénégal ki nangu lu yàlla dogal doo sonn sa xol di jeex neexul ba neexul waaye burtin mii la fi yàlla teg muy saafara jàngoroy doomu aadama yi ku ko nangu dawal dem ci moom ah burtin mooy saafara jàngoroy doomu aadama yi ci ànd ak kattanu yàlla ak mbaaxam nee naa la yow mi am problème àdduna yow mi sa bopp di ubbu yow mi jaaxle sànni ci sa dund dawal gaaw nga dem seeti burtine mu saafara ci say mbir ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ne naa la burtine bàyyiwul dara yéen ñi nga xam da ngeen a bëgg ubbeeku dem leen gaaw mu jox seen jaaro bayre yaa ngi noonu nee naa la képp ku takk ci nga tàqaliko aku la yor nee naa la képp ku sangoo di nga gis bëgg a tukki dawal gaaw nga singoor yi jaata ay singoor yoo xamante nii ah nee la ci wàllum tullay jeem ndabal wañ nee la yow ku nga jëfandikoo wañ dootu la dugg de boo méree weñ goo laal mu daal di a neexul ba neexul waaye burtin bàyyiwu dara ay muslaa yu saf la daw leen gaaw ngeen dem seeti ko mu jox leen ci ndomba yi ndombal bayri am na ndombal muslaay yow mi nga xamante ni loo jaay mu lamb dawal gaaw nga dem seeti ko mu jox la bayre jaay boo xamante ni ah lépp loo jaay mu doon nee naa la digi sump yaa ngi noonu mooy toj liggéey ak ànd ak la mu war a àndal burtin daal neexul ba neexul waaye bàyyiwul dara yow mi def examen BFEM ngay def wala bac dawal gaaw nga dem seeti yéene di ko mu waaye burtit yemul foofu nee naa yow mi bëgg not yow mi bëgg not sa borom kër wala nga bëgg not sa soxna wala sa ndaw ba lépp loo ko wax mu daal tey taxaw def ko na nga ko bëggi dawal gaaw nga dem seeti bëgg koo dóor la ay làpp taake yu efficace naka mi am na nee naa la burtin daal bàyyiwul dara gàllaaju sàcc lépp lu ngeen bëgg am na ci moom tul paaka gaaw ngeen ñëw sàkku ji burtin mu jox leen leen ci tuli pisel yi ngeen mën koo contacter ci 77 776 00 97 nekk ca diwaanu xombool buutin nee naa yow mi mbërum làmb yow mi footballeur yow mi jaaxle sa àdduna daw leen gaaw ngeen dem seeti buurtin mu taxawu leen saafara seen mbir ci biir ak ci biti buurtin ndomb woon